mbokk yi dal leen jàmm diggante Ndiaye nag Ndourène lu fay xeeñ neexul benn yoon ndax ki nga xam ne mooy PDG bu 2S El Hadj Ndiaye ay jamono dafay génnoon juin bi li nga xam ne mooy fréquence am te du ko seetaan benn yoon ndax ne dañoo piraté euh, fréquence su ki nga s ci satellite bi lépp rek pour di moom nag mu amoon ci nag de ne ñoo autorité yi euh, jour fête la musique di wax ne nag euh, kuy njëg luy njaag rek waa TFM la ba xooxoon sax ne Youssou Ndour na waxal ay rakam ndax lu ñuy def teguñ ko fi benn yoon mu waxoon na Ndiaga ak ki nga xam ne mooy Boubou Ndour ah, bu yeboo ñoo xam ne moom du ko seetaan benn yoon te bu yeboo autorité yi nañ ci jël seeni matuwaay ndax moom ah, dina dem fu mbaxana doone benn luñ ko may mu jël mbir moomu nag El Hadj Ndiaye ah, ku nekk ñibbiwaat sa kër waaye ñu topp topp ba tey ci ki nga nekk Ndiaga bu bi di Youssou Ndour dañ ko téye foofee ci brigade recherche bu Colobane def ko euh, gis nañ ne fu mu nii coow 2S ak TFM euh, mbiru pirate fréquence euh, indi na loo xam ne bëri na coow lool ndax boo xoolee fu mu nii El Hadj waxoon na ko ca njëlbeen nee du bàyyi lenn du bàyyi yoota ci mbir mi nga xam ne dañ ko ko def gis nañ sax El Hadj demoon na bay kaas ne fu mu ne nii TFM yemul ci loolu waaye ñu dem di sàcc li nga xam ne moo nekk fréquence ba taxoon na nag mbir moomu noonu fu ni nii mujj na cay loxoy yoon comme ni ko El Hadj Ndiaye waxoon ndax mbir mi depuis juin la ko xamoon le 2 juin gars dem wuy ji bi nii lañ jël nag ki nga xam ne mooy Ndiaga nekk directeur Futurs Médias ca noonu yóbbu ko fi nga xam ne mooy brigade recherche bu pour déglu ko waaye si boobu noonu dañ ko fa téewgum comme ni mën ko waxee samay njëlbeen wax pour ubbi enquête ginnaaw El Hadj ba mu jëlee ay tuuma te ko seen ndodd ne ñoom ñoo ñooy ñooy sàcc mbir mi te luy njiig ñooy njaag El Hadj daal fu mu nii mer na bay saxaar d'après les informations mbokk yi ñu ngi sant di leen gërëm jërë ngeen jëf